Sëriñ Tuba jàppale ko ci lii mu bayam ba lépp yegg ak jàmm lépp am ci ndax tey jéem a taw fii di dégg ci yow di la gërëm di la sant ci teewaay bii nga teew ci liggéey bii ñu fas yéene defal Sëriñ Tuba loolu lépp amul ma yaay Sëriñ Tuba te mu ngi yàgg lool ci ndaw ko daal kon lii di fas yéene liggéey ak centre de santé la maanaam nekk daal ko ndaw dañu dee sóoraale góor ñi sóoraale ko jigéen ñi sóoraale ko ndaw ñi sóoraale ko mag ñi ndax ku doon xam dëkk bu yaatu ba loolu jàpp naa ne nit ak ñetti téeméeri nit ñetti million trois cent ñetti ñetti ñetti junni nit yor ko nañ si million bi loo xam ne kon dëkk bu mag la te it nag lépp lu jëm ci wér-gu-yaram mooy aaru dëkk mooy aar ñu dëkk ca dëkk ba kon nag loolu lii moo tax daayira bii xëy na damaa bëgg fii day ñu jàppale la ci sa liggéey bi ngeen jël Sëriñ Tuubaa ngir aar doomu aadama yi fi yeewoo te def fanaan te ñu nag sopp ci lool ndaw ñi nga xamante ne ñoom ci te liggéey Sëriñ Tuubaa bépp mu ngi jëm ci yar ndaw ñi def ale ko am seen dënn fexe ba bu nekkee mag ñu nekk kilifa yoo xamante sëriñ bi nee na taalu bi rek a fi nekk. nee na kenn nekk mu taalu bi. kon moom li mu wax moom. ñun ànd. bu ngeen amee soxla rek. ñu koy mosu biir moom sama soxla na ko yëg. loolu yëngu dara. ci xa ci ànd ak ñoom ci seen soxla. loolu yëngu dara. ci fekk loolu. kon nag loolu. loolu fekk ak ñun. mun naa leen a mën a. si saa yu bëri ñun. mais boo leen ñu ko defee ko woon si suñu baax moom loolu mënuñ ko wax nag. comme loolu ñoo ñëw si mbokk yi. yàlla àtte mu nekk suñu kanam. ba wàcc. waaw wàcc. ba tolloo ñun. waaw ba ba suuf rek ba suuf rek. waaw te mënuñ kenn te dana xëy loolu kenn. loolu bu ñu doon tuuti ñu doon nekk ñëpp. mu jaaree ba mu mag. mu jaaree ba mu ndaw. nee na sax yooyu sax bu ñu nee taalibe. su dee nag bëri ñu ko fekk su ko fekk. bokk ci loolu yéen nag. loolu taalibe rek mu nekk. donc ñëpp ñëwoon na yàlla. nee na ñoom ñoom ñoo yegg. nee na si saa bi ñëwaat fii. ubbiwaat tool bi léegi nag ñaan mu àgg mu ubbiwaat tool bi ubbiwaat tool bi ba ñëpp. nee na ñu ngi def rek loolu la ñëpp war a def. réew mi réew mi. réew mu nekk. ñu ngi jublu kër Sëñ Tuubaa. waaye loolu. waaye loolu. ñàkk bu ca ànd. nee na moom de ñàkk ca ànd. waaye dama gën a ànd nag. waaye li mu gën a ànd nag. lépp lu waay mën. lépp lu waay mën. ñu ngi kër Sëñ Tuubaa gi rek. ñu ngi def rek. moom li mu jógee daal moo di. bu waay dajalee si. mais sëñ Tuubaa ko moom. ñun ñu kër. ak lu mën a doon. te du ko Tuubaa bii. njëkkal sëñ Tuubaa bi dëkk bii. loolu la ko laale. sëriñ bi nee na mbalit bi ak sëriñ bi la ñu. kon sëriñ bi nee na monsieur Biou. ku ci bëgg jaar ko ci moom mii waaye bu kenn du jaar fenn du wut keneen muy nekk fenn ci lu mu niral Baye Serigne mii léegi la ko ñëpp xam ne. maa ngi sëriñ ñu ngi jant rek ñëpp. dama dama def jant la. waaw waaw ñu ngi ko teel ñu ngi ko ñu ngi ko teel. amiin yëpp sax amiin. na ma leen ñaan ak suuf. amiin. waaw boo boo docteur mécanique am na ay camion yëpp mën na la tàmbali seen. waaw boo tàmbali ko bi suñu am na ñaari camion benn. waaw te day nekk muy sell. waaw mën ko xoolaat ñu jox la ñu. alhamdulilah alhamdulilah. moo ko moom mën a raar bu ñu xoolaatee ñu defal ñu loo xam ne moom lañ tax mën a am na ñaari télé am na télé am ñaari benn benn benn benn benn benn benn benn Ahmed, ano ka pare? tey ko baax. lantaa yi dafa doon seen bi dem ndànk ba doog a jëm noonu. kon

que nous lançons un appel à l'ensemble des mourites du Sénégal, du diaspora, de venir participer à ce projet. Euh, le Khalif nous a donné son aide, sa participation, euh, son soutien et sa présence. Et cela nous a beaucoup rehaussé, cela nous a beaucoup euh, donné plus de force à travailler. Et nous souhaitons vraiment l'année prochaine, l'ensemble des mourites, en présence du Khalif général, nous inaugurons cette grande œuvre Le site a été déjà localisé et le calife général des Mourides s'est rendu sur les lieux. Et le Hajj Mohamed Lamid a posé la première pierre. La présence remarquable de El Hajj Mohamed Lamid Barambake au fait de la communauté mouride a traduit le sens élevé du travail d'un homme au service de sa société. Ce que je vous demande, c'est lorsque vous avez une urgence ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire état. Notre rôle, c'est de vous accompagner dans toutes vos entreprises. Il faut donc prier pour que j'ai une longue vie. Attachez-vous à la terre de Serine Touba pour y réaliser tous vos projets. Je suis un talibé comme vous et je serai toujours à vos côtés pour des initiatives nobles. Ces talibés mourides vont donc donner tous leurs efforts pour livrer clé en l'année prochaine cet hôpital pédiatrique qui sera une référence et après le ministère de la Santé mettra à la disposition des populations le personnel médical nécessaire.